waaw Aïssa di la gërëm di am mbégte lool ci justice réew mi ci ni muy doxalee saa su nekk di wane xereñam ak seen engagement ci côté population bu Sénégal pour que ne ñëpp dox ci dëgg man dama jàpp ne dama am gàccee am déception ci li nga xamante ni Pastef ñu ngi koy communiquer wala seen leader mu ngi koy jëf parce que Ousmane Sonko tey fi ñu ko doon xaar dafa am intérêt moom pour dem leeral li nga xamante ni moom lañ koy toppee parce que 2021 ba léegi léegi ñu dugg ci presque trois ans ci benn dossier boo xamante ni dañ la tuumaal chaque jour que jëfee yaa ngi génn di def ay point de presse di wax ne dossier bi complot la complot la bu ñu la woowee ci tey audience spéciale boo xamante ni tey adduna bi yépp a ngi toog di suivre lan mooy xew lan moo fa nekk jàpp naa ne foofu la lépp war a mën a leeree parce que mbir mi duñ ko réglé ci mbedd mi duñ ko réglé ci kër yi dafa am lu ñu tënk muy institution yoo xamante ni moo ñu tënk ci réew mi ñun ñëpp rawatina kuy wutum réew boo demee bay laaj ab réew nga ni nga tënku ci nga war a tënku ci li nga xam ne ni mooy sarta réew mi ni muy doxee mais un leader politique boo xamante ni yow taxaw nga ne am nga popularité am nga askan wi yow lañ àndal mais jiiñ nañ la am nga cinquante et quelques avocats plus yow jàpp nga ne defoo dara mais nga dem wuyu ji mais taxaw ne doo wuyu ji yoon man dama jàpp ne loolu du jëfu patriote comme li ñuy woowee seen bopp patriote li ñuy xaar ci moom mooy que ne muy dox doxinu responsable mooy que ne euh, lépp loo nekk nga assumé ko nga dem ci ba jeex dama yàkkamti projet projet bi war na ñëw bu leen ko dóor bu leen ko rey bu leen bu feebar mais yàlla indi na loolu yëpp tey moom loolu la doon ñaan xam nga bu fekkee gëm nga yàlla nga ne julleen nga ngay ñaan benn affaire ba yàlla indil la ko li la yàlla indil danga war a dem pour que wan yàlla ne li li ma la doon ñaan may nga ma ko dinaa ñëw nga am même boo amul confiance ci doomu aadama yàlla mi nga amoon confiance di ko ñaan ba yàlla may la bés boobu ñu fekkee ko da war a dem jaajëfal yàlla wan ko ne ko man maa ngi nii nga ñëw leeral sa diggante ak Adji Sarr loolu gis nañ ko fi si digganteem ak comme ni ñu koy waxee ci Mame Mbaye Niang xam nga bu fekkente ne da nga départ pour wuy ji rek jarul woote jarul jug leen jarul toj leen jarul taal leen réew mi boo ko soxlaa doo ko yàq parce que boo ko yàqee yow ëllëg boo ñëwee pour nga defar ko jàpp naa ne sénégalais yi dinañ la gën a jéppi mais bu fekkente ne dañ la woo ci dossier bu xamante ni yow yaa ko wax wala yow yaa fa dem complot man laay bañ a dégg ci dossier bi wala dañ ne Macky Sall daf si dugg wala gouvernement bi kenn complot amu ci gis nga buñ xool fi dossier bi toll nañ xool li ko sabab. parce que tey bul xool li ma li li ndax li pour yow moo sabab dossier bi. parce que li ko sabab mooy Ousmane Sonko député assemblée nationale bu xam ne dañ la élire askan wi fal la jox la baat na la yow kat jox nañ la cër bii jox nañ la malaanu kiir lay demal nga défendre askan wi nga doxal askan wi in lu luy seen intérêt nga dem di jëf say jëfu bopp bala la fa fekk fekk la fa mooy nga dem ci Sweet Beauté bàyyi fi principal bàyyi fi clinique yi bàyyi fi lépp. dem si ku xamante nii tey compétence bi sa jabar yi am sax ba mën a maîtriser sa yaram li ci nekk moom amu ko nga dem fa dem fa di fa di fa di fa maase wu ku ñuy xaar ci réew mi léegi waroo waroo waroo ku ñuy xaar ku ñëpp di xaar wala ku ñëpp yaakaar waroo di doxe ne nu la neex d'accord léegi